voilà merci beaucoup euh, comité wàllu bi comme ni ñu ko gisee mu ngi composé ay doomu Kër Massar gis benn initiative boo xam ne initiative bu noble la ñun ñëpp xam nañu ne weer yee passé am na taw yu méttee méttee yoo xam ne am na ci Sénégal bi yëpp mais rawatina fi nga xam ne moo nekk Kër Massar ci loolu ñu ci bari gis na ne am na kër yu bari dañu inondé famille yu bari jaaxle ñu bëggoon a indi seenu ndimbal mais yàlla def initiative bi am borom xam-xam bu mag boo xam ne ni tey mu ngi fii ci Sénégal ñëpp ràññee ko mu nekk docteur Dieye mu tàllal ñu loxo ci ñu xool naka la ñuy def ba ensemble ñu mëna jappalé famille bi nga xamné né ne tey ji ñoom ñoo ci biir ndox bi lolu nak mu misé wu ci les jeunes leaders yi nga xamné né ne euh, tey vraiment ku ci nek yaangi joggé fu nek mais nak xam nañ respecté nañ la fa nga nek lolu waral tey ji nga gis ñu dajé ci benn comité bu tudd euh, comité walu suñu stratégie moy lan nak moy dañuy intervenir phase yu différente bu ñëkk bi nak ci lañu nek ba fi ngi tollu ni moy nit ñi ci biir ndox mi jëlé leen fa yóbbu leen ci ay appartement yo xam ne ne ne serait-ce que pendant trois mois pour que le temps qu'on ndox mi mën a dellu ñu mën a dellu kër loolu initiative bi nga xam ne vraiment comité wàllu bi amoon nañ ko di ci dox ba idée bi comme niñ ko gisee gis nga nit ku nekk nit nga mën a nekk état mu ngi don mu ngi doon mu ngi ngi lancé c'est vrai mais ku ci nekk bëggoon nga def à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal mais il faut mu am benn canevas boo xam ne ne tey war nañ fa pour que li ñuy def am ñeneen ñi nga xam ne ne aussi seen loxo euh, joteewul foofu ñu mën a bokk ci li nga xam ne ne ñoom ñooy contribuer lii moo waral tey jii ñu def opération wàllu bi si des bases solides et fiables à travers li nga xam ne ne wax naa la ko tout à l'heure euh, docteur Dieye mu wax ñu ko ñun en tant que ay doomu Kër Massar également ñu rafetlu ko encadré ko di dem di leen di jëli di indi di jëli nit ñi ci biir ndox mi di leen yóbbu ci biir kër yi je que opération bi noonu la noonu noonu la demee daal. Hmm. bon euh, c'est plus d'une dizaine de familles c'est plus d'une dizaine de familles parce que ba tey tey fi may wax ak yow nii nii am na ku ñu jëlaat encore yóbbu leen donc ci phase d'évaluation la ñu nekk xam naa ne d'ici peu rek dinañu communiquer waat wax nit ñi concrètement ñaata xale ñoo ci nekk ñaata jigéen ñoo ci nekk ñaata mag ñoo ci nekk parce que nag takku nañu nag macha allah dañu bañ a wax benn lim boo xam ne ne tey jii euh, di juum mais nag takku nañu euh, bu ñu paree évaluation bi rek incha allah dinañu communiqué wax nit ñi seen xaalis fi ko dugal fan la ñan lañ dimbale ci lan la ñu toll ak lan moo nekk seen jafe-jafe foofu la ñu toll ci opération bi. waaw fond li ci gën a li ci gën a neex mooy euh, am na si ñoo xam ne dañuy indi deux mille ñi indi mille ñi indi leneen lu waay am. dañ koy jël ñu teg ko donc ki nga xam ne ni joxe na 2000 kooku ñu jàpp nañ ay milliards la ñu jox am na ci koo xam ne joxe na des centaines de mille également c' est la même chose dañ ko ubbi def kont waxtaan suñu biir gars yi dégg ko maintenant di yónnee li nga xam ne ne mooy seen xaalis xaalis boobu noonu moom laa lay wax wax nga ko totaleur à l'heure dañuy reloger ay famille mais ñun gis gis nañ ne état ndox bi minimum war nañ am benn deadline de trois mois jëlee leen ci ndox mi yobul leen xaalis boobu noonu ñu jox ci fofu lañ ko duggal bu ci nek ñaata lañ ci dépenser fi ñu ko duggal yépp bind nañ ko incha allah le moment venu dinañ ci communiquer ku ci nek xam aussi yow mi nga xam ne dugal nga sa xaalis sauver nga des vies donc voilà c'est ça waaw. alhamdulilah parce que fofu noonu depuis ce matin on a fait presque le tour de Kermassar hein jugé nañu kaas ba dem Parcelles Assainies ñeu Camille Bass ñu ngi wajal dem à côté Alaaji Paate sourire lañ fa gis. parce que boy xol bañ leen jëli ji détresse la dañu dañu dañu sonon mais tay yalla dafa def biñu ñëwé comme tout à l'heure da ngay gis ño xam dañ ne ñom sax ñu ci bari euh fiñ leen mo gënu ñu metti fuñ leen andi donc lolu moy constat d'une manière générale bi te wax dëgg fa yalla borom kër yi nga xam ne ni tey jii seen kër aussi leen ben yoon message bi lañ fa jëlé di xaar nak aussi yeneen dimbal yo xamne buré bu dee parce que ko xamne ni tay ah biñ lay jëlé sa kër amana dund bi fa amone dund ba ndox bi yóbbu na ko yow yaa ñew ak sa famille donc bo gisee ñu def suivi évaluation c'est une façon ñun aussi ñu xam carrément lan mo xew lan mo fi nek ñu mëna def suñu orientation pour euh, les actions futures waaw suñu objectif primo ben rek la won mo nek reloger les familles mais nak boy dox dox di dem euh, comment dirais-je euh, terrain bi mom moo lay moo lay guider yi bëgg-bëgg rek lañu am fu tollu ni suñu bëgg-bëgg moy bu ñu amaatee leneen loo xam ne ne à part bi dinañu dina dinañu dimbale dimbale ñeneen ñi euh, selon ñoom li ñu wax parce que booy xool euh, côté nourriture wax nañ ko xale yi léegi ñu dugg ci école yi jàngi côté fourniture côté inscription yooyu yëpp bëgg-bëgg la rek parce que ndimbal moom ndimbal kese la donc euh, loolu mooy li nga xam ne mais objectif bi c'était juste les reloger. voilà objectif bi c'était juste que ñun en tant que des citoyens ñu wane ne balaa ngay tàllal loxo yow am nga loo mën ñun suñu mën lu ñu mën mooy ñu boole suñuy doole boole suñu doole def li ñuy def nak c'est pas parce que dañuy xaar autorité wala xaaruñu né nañ la euh, plan orsec bi déclenché nañ ko c'est vrai mais ñun aussi mënuñu xaar plan orsec amna na leneen loo xam c'est un plus value ñun mën nañ ko def no plus quoi je crois que lool mo nekkon suñu mission et le autre là merci beaucoup. Euh, di leen gërëm bu baaxa baax di euh, tambalé ci niyu ak gërëm ak sargal ñi nekk ci sama wette di ay jeunes Kër Massar ñom nak ku leen tudd rek tudd nga danaka wa Kër Massar yépp parce que ay jeune la. yu jóge ci kuréel yu fasantikoo yoo xam ni parti politique presque yëpp a ngi fi association citoyenne yaa ngi si conseil départemental de la jeunesse daanaka daal ñëpp ñu ngi ci biir. li tax ñu daje fii nag dafa dul bi ñu gisee image yi euh, feeñ ci tele bi ak jafe-jafe yi Kër masaar am comme ni ko sénégalais yu bëri gisee ñu seetaan ko muy lu ñu lu lool ndax ñu ni euh, fii ñu toll waratuñu bàyyi ay doomi aadama suñu ay mbokk parce que mala sax boo gisee ci jafe-jafe da koy dimbali waxuma la ak nag doomu aadama muy dund ci yenn conditions yi surtout ay xale ak ay jigéenu wérul ak ay mag. ñu ni nag nañu jéem suñu kéemtalaay kattan bi ñu amee xalaat bi ñu waxtaan si man damay jiite kuréel bu ñuy tuddee Sénégal bi ñu bëgg waaye bi ñu ko waxtaanee suñu biir ba pare ñu ne lii kat ëpp na sax. tudde benn kuréel wala def ci luy niroog politique wala leneen nañu ko def lu humanitaire loo xam ne dimbali askan wi moo ko mën a tax a jóg Bimonyo ñëwé ma waxtaan si ak wa Kër Massar xalé yi nga xam mu jotna leen ci xam mu di Mouride Alioune kan mané ko nak bëgg nañu def ndimbal bo xamni ndax gëm nañu ni ni mu ma metté ba ma bëgg ci jëm amna yeneeni sénégalais yo xamni ñoom itam xeyna metti na leen bëgg nañu jëm waye xamuñu fuñu jaar nañu bolé loolu pour woné ni bu amé bërepp bu am jafe-jafe ci Sénégal bu ñëpp indé ku né dugal tuuti sa loxo ñi am xam-xam dugal ñi am alal dugal ñi am seen ñaax dugal dinañu safara dimbali suñu ay mbokk suñu wa askan duñ ci xaar sax euh, xaalisu bitim réew wala lu demee noonu bi ma ñëwee ko ñoom ñu rafetlu ko ñu ma seen parce que ñoom ñooy Kër Massar ñoom ñoo ubbi bunt bi bi ma ñu ne ma danañ leen ko yombalal def liggéey bi parce que li muy bu jafe-jafe ci communauté waa communauté boobu saafara seen jafe-jafe donc dañuy bëgg exemple ni benn bu amee jafe-jafe yu mel ni mbënd mi waruñu ñëw rek euh, nit li gën a jàmp mooy ñu génne leen ci ndox mi parce que nit mënul dund ci yenn conditions yi bi ñu ñëwee ñoomit ñu xar ci seen tànk tubéy nelawuñu yenduwuñu fanaanuñu lekkuñu guddeeg bëccëg ñu ngi ci ndox mi di identifier famille yi te def ko nag ci loo xam ne lii mooy li ma ci gën a dal sama xel muy lu objectif. seetuñu ku ñu xam seetuñu ku ñu bokkal seetuñu ku leen jege dañu dem seeti ñi gën a am jafe-jafe ñu génne leen reloger leen ci conditions yoo xam ne yi mooy condition yu nit mën a dunde loolu nag yaakaar naa ni tey bu ñuy demee bay def évaluation bi loolu tax ma dellu si man jàpp ma ni dëkkuma Kër Massar wala feneen laa dëkk dama jàpp ni sénégalais la mhm. dama jàpp ni doomu aadama kese la mhm. bu ma gisee fu am jafe-jafe ci Sénégal benn sénégalais bu am problème rek mel na ni man maa ko am tey dafa mel ni ñii ñëpp sama ay mbokk lañu ñii itam dafa mel ni maak ñoom ñoo bokk lépp te loolu sax mu am ndax bu ngeen bokkee nekk réew mi nekk citoyen nekk ay compatriotes seen lépp day daal di nekk benn tey wane na ni sénégalais yi bu ñu àndee yëkkateendoo tëralandoo mën nañ ci jëlee loo xam ne lii lu bari lay doon te ndam la tey nag li ñu def ci liggéey fii ci Kër Massar wane na ay résultat yu am solo seetlu nga di famille yi ñu jaar yëpp euh, daam wax na ko ci waxam bi ñuy tàmbali détresse la ñu gis waaye tey fii ñu toll jeexagul waaye ñu ngi commencé gis loo xam ne nii daanaka bonheur la ak mbégte mu ñu mën a gis ci famille yi ndax ka nga fekk ci ndox ma mu nekk fa di am ay jafe-jafe ak ay coono. nga jëlee ko fa def ko ci ay appartement yoo xam ne yii mën na faa dund moog njabootam ba keroog ndox mi di jeex ñu delloo leen fii ak ñetti weer yaakaar naa ne loolu tey rek bu doon loolu rek la ñu yem ñun ñëpp am nañ ci mbégte ak satisfaction te nag bu mënee am wax dëgg yàlla ñii ñoom ñoo tax moo tax Souleymane bam mii fi nekk ak Jibi Sow ak Dame Thiam ak Muniru Alioune Kane ak ñoom Shingo ak ñoom Commando ak Diène ak xadika mënuma leen a fay lu dul wax leen rek ak su soxna Abi Soumaré ak ñepp ño xamni duggal nañ seen loxo seen yéene ngi ci man day ma leen di wax ni woné nañu exemple ci réewum yépp woné nañu tay bép jeune sénégalais ak ku gox bu mu mëna doon ni buñu amé jafé jafé ci seen communauté nañu faté seen appartenance parti nañu faté seen ethnie nañu faté seen religion nañu faté seen appart lu mu mëna doon ñu ñëw ànd en tant que citoyen en tant que compatriote tay jeune Kër Massar woné nañu ni quand l'essentiel est en jeu. seen communauté soxla lépp lu ñu jàppoon wala lu ñu mënoon bokk te mu te mu wuute bàyyi nañ ko ñu ànd yëkkateendoo moo tax ñu am résultat bi ma leen di sant di leen gërëm di leen wax ni nag dañu dox ba nekk mi chemin danañu ànd continuer ba mu jeex li mu wax tey fukk ak benn wala fukk ak ñaar ci ay famille lu ëpp téeméeri doomu aadama yoo xam ne ñoo doon dund ci famille yooyu te nekkoon ci ndox mi di ci fanaan di ci yeewu di ci lu ne ñu ko ci def lu boo leen génnee xam nga ni loolu liggéey bu rëy a rëy la ñuy profité aussi di gërëm sénégalais yi nga xam ni ba ñu wootee dégg nañ ñu yëkkati seen alal mu bari mu tuuti ñu ñëw yokk ko si ñu leen di garantiral ni xaalis ba ñu dugal foofu ñun ñu tàmbali ñeneen ñëw ku ne jàpp ci xaalis boobu tey def na ay sourire yu bëri ay bonheur yu bëri te mu ngi wax ni sauvé des vies parce que nag wax dëgg yàlla nit ñi nañ leen fekkee woon bu ñu leen bàyyi woon ca ndox mooma ay jàngoro mën na cee jóge feebar bu ne mën na cee jóge surtout ci xale yi te loraange ba muy indi ci ñom kenn mënu ko xam donc vraiment ma leen di wax rek keur Massar euh, vous pouvez être fier de votre jeunesse ko keur Massar yëpp képp ku sétane li ma nga lay wax ni na sa xel dal na nga am fierté ndax am nga jeunesse bo xamni bi am nañu intelligence bi am nañu capacité de dépassement de lu bari pour nek rek au service de leur communauté loolu nak leçon la bo xamni bi ñun ñëpp ñom jox nañ ko te ñuy sante di leen gërëm encore une fois képp ku ñu sétane itam te nga bëgg ci dugal sa loxo bëgg yokk ci ndimbal li dara na nga ñëw ànd ak ñoom nga jàpp ci nu mu mën a doon rek xamal ni liggéey bi des na parce que famille yi am na ñeneen ñu nekk ci ay jafe-jafe te ñii ñu lu reloger aussi dinañ leen dimbaliwaat ñu dellu seen ay kër bu fekkee ni dem nañ ba ndox mi jeex fa jërëjëf.